asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 3 avril 2020 ñu ñëw a yéen ci yëglekaay yi tey nag sunu làmb li nay xëy dooreti ko yëglekaay ba nag tey ñaari mbër la ñu indil mooy ki nga xam ne nii moo di Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye ak promoteur bu mag mooy ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue mu mel ni ki nag yëglekaay ba dafa xëy tey sampub laaj nee na combat Modou ak Ama bi nga xam ne day wóorul ndax dina am ren est-ce que combat boobu nag su amulee ndax kii di Modou Lo ndax dana bàyyi lig Nicolas ndax nag la tax yëglekaay bi samp ko nee na Modou ak lig moom dara daf leen a ci wàllum contrat bu fa wax amee daal xëy na waxtaan la nii rek ba déggoo waaye contrat bu ñu xaati moom liyewu leen sunu làmba ko wax ne nañ daal Modou ak Ama moom bokkuñu ndax bu dee Ama moom jot naa encaissé ñaar fukki millions ak juróom waaye Modou moom boo bëggee dëgg-dëgg daal sunu làmb ne nag dara lu ko lii ak lig amul moo tax yëglikaay ba laaj tey ndax nag dana ko bàyyi seeti leneen sunu làmb xëy tey ñëw ba tey bu nu continuer ci mbir moom mu mel ni kii nag ka nga xam ne ni moo ne ci seen diggante taxaw di Gaston Mbengue moom boo bëggee dégg-dégg daa mel ni day moom ak ñëwam ci làmb ji suñu làmb ne na dafa leer dafa bëgg dikkaat ci làmb ji te dikk bu baax la bëgg fëgg fu wóor a mu mel ni kii nag la muy lëñ bët mooy diggante Modou ak Balla maanaam daal ñu seen ñetteeli jàkkaarloo daa mel ni moom loola moo ko intéressé suñu làmb xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni moom ay adversaire am la gars yi xëy tey di ko wax ñamu war a mën a bëreel kaw ko kàll Gris Bordeaux bu Fass yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko laaj ci ay borom kilomètre ku ci ne wax nga ca moo xam ka nga xam ne moo di Abdou baaxum la yore Ama Baldé ab mënaan sa dëkk ca Pikine Abdou nag ka mu gis daal ne na diggante Gris ak Tapha Tine ne na moom lem gu ñu segg la boole moo boole koog meew day yomba suukar de combat du ko dàq nga xam ne ni moo di Pape Diagne Seras ne ko am na bu ko gën a neex ñu ne ko Pape ban la mu a diggante Gris ak Lac ne na boobu derby la ne na combat boo xam ne day ay xeex xeexkat lañu moom loola la gis moom ma nga xam ne moo di Pape Diagne Seras leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne gis nañ ko ci yëglikaay bi di sunu làmb mel ni ki moom itam mu ngay wax muy Mor Kankang moom daal kombaam boobu nga xam ne moom la bëri ak caatu ngéwél daal mu ngi xëy di wax de ne na daal li mu jàpp mooy fi mu nekk nii ne na mbir ma menn mbir la kàddu nga genn la jàpp daan daal la tudde boobu combat keneen koo xam ne moom ab xale la Double Tyson dëkk ca Saalum moom xëy na ci yëglikaay bi di sunu làmb di wax ne daal kombaam ak Baye Mandione ñu ngi ko doon démarché ngir ñoom ñaar ñu war a bëri Double Tyson moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu kii moom ñu ngi koy wax Cheikh faal ngoom Cheikh Fall ngoom nag xëy na ci sunu làmb moom nag mooy coordonnateur Los Production ba ca mbuur moom daal nee na lii am ba des mooy fi nga xam ne mooy ci diwaanu Mbour moom pour ñu am fi koo xam ne dana donn yax yu jóob Yékini wala Bombardier moom daa gëm ne loolu est-ce que dooti na am loolu daal la xëy tey di ko laaj moom Cheikh Fall Ngom ndonooy ñaar ñii daal jàpp ne pour mu amati ci làmb ji wala ci seen gox boobee nga xam ne moo di Mbour moom ku koy wër yaakaar na ne da nga wër a wër bay bëgg a dee keneen koo xam ne nii moom gisati ko fan yi wala boog raar na muy muy bekaay mbay moom daal fi mu nekk nii daa mel ni gis koo ki xaw naa jafe yëglikaay bii sunu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni noonu tey bu nu continuer ci sunu làmb ñëw na andil ñu ki nga xam ne nii nag moo moom la jot a commencé ak fam ca yem boo bëggee dégg-dégg yëglikaay bi nag yu mu jël xaalis ba toll na ci sept mille woo sept millions huit cent soixante dix mille francs xam ne daal Franc jot na ko dugalagun ci poosam saison ba nag far fa jaare taxaw ndax coronavirus ba mu mel ni ki nag saison booba nga xam ne ni loola la ca Franc jotagoo def école de lutte faram moom seen combat bëri ca yëglikaay bi ñëw na tey wax nu ko muy vingt cinq combat waaye li am ba des daal mooy soo bëggee dégg-dégg daa mel ni moom mbir ma na muy doxe baaxagul ndax dix victoire la def quatorze défaite ak benn match si niil yëglikaay bi di record a xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki doon ci gëstoob Abou Ndour leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci record muy ki nga xam ne mooy Caaka Fay ak Anta Samb la olof naan ay du ci boppa kenn du dem fenn kenn du ñëw fa ca des mu mel ni ki ñaar ñii moom di ay doomi Sénégal ñu nga fa nga xam ne mooy ca Maroc tëju fa rab mu mel ni kon corona bi daal ñu ngi ñaan yàlla mu dem ba faw ndax nag lii moom métti na doo tukki doo dem doo ñëw waaye tamit ñu jàngat ci ne gars yi dafa mel ni yàlla dong dong moom kese moo fi ne te moom rek mooy buur kon yàlla na fi jële lii ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen ziar di jéeglu nag a baax démb a baax di leen baal di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci yéen ci barke yonent bi sallallahu alayhi a ne ne moo lëmbe àddina yàlla na ko fi yàlla jële bi barakati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak barke ñaanu mag ñu baax ñi ci réew mi yàlla mën na ko yàlla na ko def ndax moo ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey gis ngeen ko sunu làmb fi mu xëy ñëw ci mu Lo ndax combat bi comme wóoratul mu am est-ce que day bàyyi lig ndax Gaston Mbengue ku nga xam ne bëgg na ñëwaat ak yooyu loolu nag li ci am solo daal ñun li ñuy wax mooy Luc Nicolaï ci boppam la ñuy ñaanal yàlla yàlla mi nga xam ne moo ko teg nattu yàlla na ko ko teggil ba mu génn fa mu nekk ba pare su ñëwee nag ñu doog a lijjanti lu mu mënta doon waaye daal xam naa ne ñun moom wala man ba Babacar boog la may ñaan mooy fa mu ne daal moom Luc yàlla na fa génn ak jàmm ak jàmm barke bi parce que tamit defe naa ne loolu mooy li nga xam ne moo ëpp solo ci moom après nag su ci desee nag ah lu am rek ñu xam ne yàlla la ndax moom

ba ñëpp ku nekk di doxaat parce que muudu muudu yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar ngeen waaye nag yàllaay dogal yàllaay dogal encore une fois di leen nuyu fu ci waaye mën a ne du ñu tudd turu kenn tey dañuy nuyu bépp muudu muudu rek fa mën a ne ci àddina bi tey doomu Sénégal yi ñu lay ñaanal jàmm a ah, di waxaat rek loo xam ne tey mënuñu ci bañ wax ndax coow la ci dëkk bi dem ba tey muy mbirum sumbalu bàcc li parce que faw ñu tudd ko ci affaire wu kaw kaw ak yu mel ni kii noonu may wax euh, ñun Sénégal nañu xam ne Sénégal moo ñu boole nit nag dina juum nit day juum te yaakaar naa ne njuumte moo ko dal ndax xëy na amul volonté wu pour man ñëw jël kàddu di wax ngir xas ay askan wala aw ay doomu aadama fooguma loolu non non parce que ña koy liggéeyloo muy TFM ba nga xam ne ni fa la émission ngoonal di am borom kër ga doxewul noonu ña fa nekk doxewul noonu mais nag juum mais damay waxaat rek di ko ñaax di ñaax suma bopp di ñaax képp kuy wax ñu lay dégg nañu xool li ñuy wax di ko segg bu baax a baax a baax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar man mi di wax ak yéen kaw kaw laa maa nga dëkk ak yaay village waa pire yaa ngi dégg te je suis fier d'être villageois mais nag loolu villageois ak capital ak yooyu amul sens li am sens mooy Sénégal na moo ñu boole mooy mayo bi ma sol drapeau national vert jaune rouge yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu xel mu sell ñu jéglante di di jélale ndax tooñ lu mu réeréy baal ma da koy ëpp yaa ngi dégg kon nag di wax ka ni daal mbir yi nañ ko jàppe noonu rek ñu balonte ak xam nga di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp jàmm mais mention spéciale à Samuel Eto'o fils taxawaayam ci Afrique am na solo nit ñi loolu pour man sax mooy sunu combat africain yi nañu jàppante bokk ndey bokk baay Eto'o fils l'international camerounais di doomu africain mu ngi défendre Afrique ci côté bu mu mënee ndax nag loolu moo am solo maa ngi ballu ñëpp ax di jéglu si guddaay bi di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmmee def ko ci àddina bi yëpp barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam